ci làmb la ñuy dox saa su nekk tey ñu fas yéene tey seq ak waxtaan koo xam ne nii ah ku ko xam-xam ko ci làmb ndax li tax mooy Modou loo moo tax ndax ku tudd Modou Lo di nga ne Ibulaay ku ne Ibulaay ne ko mais balaa ñuy sori dañ koy jaale way juróom bu góor bi nga xam ne génn na àddina fan yi passé di ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana parce que tamit euh, loolu mooy am si àddina nit ñi dañu fi nekk bala yàgg ñu jóge fi ci lépp ci ndogalu borom bi lay doon rek waaw moo tax ba nga xam ne daal lool du mën a ñàkk Ibu maa lay ziar waa sëñ Babacar maa ngi di la nuyu di nuyu waa Equivox TV yëpp di leen ziar waa di la delloo njaal mi xam ne suñu pàppal la ñëpp moo génn àdduna di ko ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana yërëm ko si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, sunu la ñun ñëpp comme ni nga ko waxee mais balaa may sori ak yow si wàllu làmb ak yooyu dinaa la laaj euh, euh, sa wayjur boobu génn àddina yàlla na ko yàlla xare aljana tey Ibou bu ma doon wax ci góor gi kan la woon nu mu meloon nu mu doon dundeek njabootam waaw googu daal di ku baax xam nga di ko yar njabootam yar leen si diine islaam waa comme li ñu koy jëwee rek góor gi moom boo bëggee ngeen jubóore da ngay julli moom dëgg waaw loolu moom loolu moom mën nañu ko ko seedeel moom góor gi moom boo bëggeen bëggee juboo moom da ngay da julli boo ko bëggee nax sax da nga koy nax si julli ñun bi ñu gën nekk xale bu ñu ko séedee dañuy dem la si bi <laughs> bu ñëwee neexal la waaw góor gu julli jullite góor gu baax dëgg yàlla yar ñu nag yar ñu yar ñu yar ñu fi ñu war a yare nag waaw ba tax ñu sante ko ko bu baax tamit waaw tey buñ dee buñ dee buñ dee tey ba mel nii ba fu ñu woote ñëpp uy suñu wala lépp lu ñu xewle nit ñi uy suñu ñu ngi ko koy sant di ko gërëm ndax amaana bu doon yaruñu wala teguñu fu ñu war a teg kon du ñu mel nii wala ñu wala ñu mu demee nii waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax fi mu jëm gën a ko fi mu jógee yàlla xare ko si àjjana yi gën a kawe te yërëm ko si barke yéen yow yaay taawam wala déet maay caat <laughs> maay caat am na ay mag maay caat quoi mais waaw sama mag yeeg ñëpp vraiment di kontaan ci ñoom jàppale nañ paa bi xam nga tamit feebar dafa metti waaw sa waajur bu feebaree ñëpp bàyyi seen lépp nekk ak moom sama mag bu góor xam nga nekk moom nekk moom fépp bàyyi liggéeyam bàyyi lépp ñëw dëkk ak paa bi nekk ak moom vraiment di bépp coono bu ñu si daj daal yàlla ko yàlla ñu ko yàlla fay yàlla waaw bépp coono bu ñu si daj tam yàlla na ko yàlla fay parce que loolu tamit ay ngëñal rek la sa waajur rek nga ko mën defal waajur moom loolu rek moo tax tamit ñu nekk ci àddina boo dee ba toll sa waajur toll fenn fii doom rek moo ko mën a jàppale waaw vraiment taxaw rek. mu mel ni su ma parce que man keroog bi ma déggee euh, biñ ne génn àddina defe naa ne suma jumul seen wi lañ ko yóbbu lañ ko yóbbu te ñu bëri dañu yaakaar ne Ibou Laye waa Ndakaaru la wala fii la ay origine am wala yu mel noonu lu waral yóbbu seen wi ga. waaw ñun waa Ndar lañ man Saint-Louis laa juddoo suñu famille ñëpp saint wi lañ juddoo côté yaay côté papa waaw Saint-Louis lañ juddoo suñu famille yëpp ngi Ndar. donc euh, bu affaire bi amee tamit ñu jël ko jébbal ko boroom yóbbu ko ndar waaw tamit di gërëm waa Saint-Louis bu baax vraiment teeru nañ ñu kër ga sama magu papa yi sama rakku papa yi ñëpp taxaw si waa famille Wade yëpp daal gërëm nañ leen sant nañ leen ndax dañ jël lépp téy ko seen loxo tëj ko foofu def lépp waaw. ñun Balakoos sama côté papa Balakoos sama côté yaay Corniche ñoo dend quoi. Hmm, di gërëm tamit di sant. imaamu imaamu jumaa ji xam nga imaamu Wade taxawu nañ ko moom moom kii la waa kër Abbas Sall yi la waaw waa kër Abbas Sall yi la tamit sañ ba si Abdou di ko nuyu di ko ziyaar suñu sëriñ xam nga yow fa délégation bu am bu mag moom moo bëggoon teew sax mais xam naa ak ki kii waa ceek ceek jamono ji mais vraiment ñëwul mais mel na ni ñëw na ndax ñu ngi fa yebal sëñ mu ngi fa yebal sëñ Ousmane si mu ñëw taxawu paa bi jullee ko jébal ko boroomam waa ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant sëñ Bay si Abdou. Hmm. am na solo kilifa loolu dañ koy soxla ci moom te itam du amam su yàlla na ko yàlla xare aljana euh, léegi su ma ñëwee ba tey ci côté boobu li ma fa ciy jeexal rek yaakaar naa ne ku la xam-xam la ak Modou Lo te defe naa ne foo taxaw mu taxaw foo yow itam euh, maanaam foo taxaw moom di nga ko fa gis maanaam yéen ñaar daal benn ngeen. defe naa ne ak ñoom Papis ak ñoom Serigne Ndiaye ak parce que man Serigne Ndiaye sa keroog moo a jox xibaar boobu mel ni ñoom tamit seen présence foofu amoon na fa solo trop de. vraiment seetaanuñ la daal. moom kay comme si que seen seen waajur moo gën àdduna rek te mun naan sa seen waajur la ndax bi affaire bi amee kenn toogul kenn taxawul. waaw bi paa bi feebaree chaque instant gars yi ñi ngi ñi ngi koy seet ñi ngi may woo ñi ngi ñëw comme comprendre nga mu taxu taxawaay bu am solo xam ni papaam la ndax paa bi xaritam la woon tamit mm. waaw paa bi la woon moo foo ko fekk tooñ paa bi waaw bi paa bi nekk hôpital ak feebar xam nga rek góor gu nekk hôpital ni mu méttee xam nga moo du wax dëgg yàlla taxaw si taxawu mat sëkk waaw seet si paa bi jàpp si daal li mu si war a jàpp wax dëgg yàlla bi yàlla dogalee li mu dogal tamit noonu mu ñëw ba ndar ñu dem ñu dem ndar préparé paa bi denc ko lépp lu tamit mun naa daal lépp daal ñoom la daal gars yi daal mun naan ñoo def lépp sant naa leen bu baax gërëm naa parce que def nañ dérangement ak xam ni daal lii seen mbir la ñoom Serigne Ndiaye baaw ñoom si guddi gi ñoom dañ ñëw fanaan seeg man Ndar waaw jàpp ci affaire yi ñu xëy nekk ci affaire comme si que daal seen papa moo génn àdduna te mu naan sax mu naan sax seen papa la waaw bi ñëwee tamit def sarax si dakaar tamit noonu lépp parce que xam nga bi ngi tëjee Ndar léegi dama nekkoon huitième jour bi dañ ko def fii dakaar comme pour waa Dakar yi bëgg jaaleeg yooyu ñëpp tamit ñëwaat jàpp si liggéey bi ñu nekk ñu nekk ñu def ko Dakar waaw. Mm. yal na ko yàlla jéggal léegi su ma continuer ak yow defe naa ne yaa ngi ci làmb balaa muy ñëw sax si ko si mbirum euh, di sori bu baax baax si làmb ji fan yi li ngay dégg ci dëkk bi yoo xam ne ay information yoo xam ne après dañ koy wax te du demee na muy nañ koy waxee soit ñu tàgge nit muy lu doy doyot muy lu doy waar def nañ ko way juru Modou bu jigéen bu yàggul yaa ngi dégg xëy nañ fi tamit ne Balla gay numéro de dafa wér dafa feebar te loolu amul bari ki démb ñu tàggee fi alaaji Baaba mal yaa ngi dégg kera ñu ne Lac Rose bu Fass dañ ko arrêté ngir affaire vol bari ki démb ak sàcc yooyu te loolu amul ba waa Fass sax suma ma ñu ngay cee wax waxu plainte ak yu mel ni ki noonu yooyu tamit yéen ñi nga xam ne nii yow kere bi nga déggee ne way juru Moodu euh, génn na àddina est-ce que xibaar boobu jotoon nga ak bi ñu ko déggee nu maanaam mu la def jot naa ko jot naa ko mu nekk lu metti quoi xam nga tamit gis nga Babacar baaxul xam nga nit da ngay def nii rek pour gañee mais ëllëg war nga xool sa bàmmeel ak boo demee looy wax suñu borom xam nga gis doomu jaamul nga ŋàññi ko wax si lu la neex loo xam ne dara amul jël woy juru jaamul rey ko te deewul ndax lan pour am ay vues pour am ay pour pour lan fayeeku te yaa ngi fayeeku si loo xam ne àqu jaamur la baaxul comme na nga bu dee ay doom bu def yu nga looy ut wala bës nga bëgg wala nga dem nga dem defi leneen dul loolu xam nga. tamit daal man daal affaire yi man jaaxal na ma quoi vraiment neexul ci xol xam nga ka nga xam ne neexul ci xol yow bu la dalee bu la arrivé science nga toog ñu ŋàññe la xol tey la dos liñ ko waxal metti na ah say am de confiance commencé wàññi si yow lu da lu bëri loo xamante ne mooy loolu yow il faut yow ñi la xam dëgg rek ñoo lay voilà mais sinon loolu vraiment metti na nit ñi koy def nag war nañ ko bàyyi presse bi d'accord bëri na site yi bëri na mais nañ nañ ànd ak yàlla dañu seeg affaire yi ànd ak yàlla comprendre nga xam ni tooñ baaxul lu waaye di wax fi ëllëg tey dinga ko wax ëllëg lu waaye bind fii tey di nga ko wax lu waay waxal ni fii tey tuba di nga ko di nga ko léegi suñu borom nañ bàyyi tooñ ngir yàlla. Mhm. am na solo tooñ de baaxul yàlla nañ ci yàlla musal te dégg naa itam gor du tooñ tooñ daal ku ku ku wala boog boo juumee ba tooñ na nga am mat gu toll ni jéggulu ndax it njuum njuum te moom du wees si doomu aadama. waaye bu ëppee daal day day tuuru li olof di wax defe naa ne tamit bu ñu continuer ci leneen loo xam tamit coow la fi jóg fi fan yi dal ci Moodu ci mbirum ay wàllum ay gëm-gëm ak ay appartenance yu mel ni kii noonu loolu tamit defe naa coow loolu ngeen ko en tant que ay proche Moodu ak ngeen ko dunde loolu mhm. waaw mais loolu moom loolu moom jarul sax ñu si sax parce que tamit affaire yi xew noonu lépp tamit si diine la si si xam nga man bu doon sax dañu ni saa yi dafa jóge fii dem ci ay ci ay leneen loo xam ne bëggu te diine ñu mën a wax comme comprendre nga mais invitation la invité nañ ko dem na mais pour man daal pour man daal jarul di commenter rek yooyu parce que tamit euh, si sama si man daal si sama gis-gis tamit nit dañ lay invité loo xamante ne des fois nga dem si ay si ay ñu invité la ay ay concert invité la ay programme mu waykat nga dem te kenn du si wax comme que lii na problème diine la rek pour man daal lépp si diine gi la daal. waaw nit ki nag moo am sa gëm-gëm ku nekk nga gëm ku ne mën na gëm lu ko neex waaw mais nag lépp nag si islaam la si diine la man daal loolu laa gisee quoi. Mm-hmm. mais Modou loolu yow yow jeg nga ko loolu bi mu amee coow loolu bëri moom nu mu ko dundee moom noo noo nekkee woon nag yow mi ko doon gis jamono ji nu mu dunde woon coow loolu est-ce que na ko ak ak dara sax dunde ko ak dara de mm. ah parce que moom tamit boo ko waxee tamit demul si loo xamante ni lu neexul yàlla la demul si aram de waaw léegi nag leneen li leen li des mooy nit ki moom sa gëm-gëm yaa ko gëm yaa xam li nga bëgg li nga bañ ki baakaar yow am nga loo gëm am na lu ma gëm loolu am problème mais nag ñu wóole si diine nga dem wuy si diine tamit invitation la invité la nga dem wuy si diine mais ooyu la problème pour man amul benn problème ah hmm. am na solo wax na dëgg parce que defe naa ne am na yu bëree bëri sax des fois mooy loolu yàlla nañu yàlla defal jàmm rek waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm ku ci nekk tamit la mu nekk na ca nekk ka ca des mu bàyyi ko ca la mu nekk rek ba bu ko defee jàmm ne ñooy waaw defe naa defe naa loolu moo am solo. waaw jëlu polémique bi tey affaire bi lu mu bëree bëri bëri foo ay mënta jóge tamit ñu ñëpp si yàlla la ñuy mujj te pourtant ku nekk li ngay woote yàlla moo tax nga koy woote kon kay c'est pour man waaw. <laughs> léegi damay ñëw ci loo xam ne nii defe naa ne seen combat actuellement date bi ñu ngi koy wax pour mois de mars la 13 mars le 25 décembre jàkkaarloo war a am sa euh, arène nationale su ma jumulee mu du ak amaa defe naa war nañ jàkkaarloo. waaw war nañ waaw. ñu ngi wax maa ngi maa ngi koy dégg nag mais amaguma confirmation bu leer à 100 pour cent pour le mais maa ngi dégg le 25 décembre war nañ jàkkaarloo ñu ngi koy waajal lu baax di ñaanal promoteur bi rek tamit xam nga yàlla jàppale ko affaire bi métti na métti na mbër yi métti na si promoteur bi métti na xam ne feebar bi moo fi nekkoon. tey li bu affaire bu egsee ba fii à cause de feebar bi mais comme que yàlla bu ñuy jàppale que affaire yaa ngi changé ñu naan yàlla mu continuer rek ba bu ñu amaatee date mu baax signature bi vingt cinq ñu def ko si jàmm incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, bu buñ amaatee da ñu def signature bi yàlla na loolu am li comme ni mu ko waxee rek xam naa ne moom euh, te gis naa sax mu commencé def benn teaser boo xam ne bu doy doy waaral defe naa léegi moom waaw teaser bu yéeme gis naa mu def ko fa yii de. mi ngi waaj ay bagage nag yii mi ngi waaj ay bagage waa mi ngi waaj ay bagage waaw yàlla ko yàlla jàppale rek vraiment gannaaw bu baax la sañ Fallou sama sëriñ. <laughs> daa mel ni lig seen pros la de yéen waa yéen ak seen bër. déedéet pros ñëpp la lig promoteur la. Ah. lig promoteur la daf ñu tëgg tëgg suñu adversaire. li même point d'égalité du question ay def ni waaw mais nag ñoo bokk milieu bi. ñoo bokk milieu bi kon war nañu sëkkanti lu baax. man waaw man war naa am man bi ma amee naqar li bokk na si mu njëkk woo. xam nga jaale ma. Mhm. moo fekk fekk bu ko fekkoon amoon na yéen a ñëw ba ndar. Mhm. comprendre nga. Mhm. mais woo na ma jàll ak ñeneen ñeneen ñoom Aziz Ndiaye xam nga Baye Ndiaye Baye Ndiaye dépla déplacé na ñëw ba si man jaale ma xam nga loolu te pourtant loolu yëpp loolu yëpp làmb la Aziz voilà Aziz dafa voyagé woon bi mu njibisee woo na ma téléphone jaale ma ñëw bu ko fekkoon kenn du ko fa njëkk comprendre nga ñëpp ci milieu làmb la quoi donc waaw amul amul amul amul amul problème quoi. daa war a rafet wax na dëgg lépp làmb la adversité bi après benn bés la bu jeexee jeex na ku nekk nekk ci jàmm dañoo bokk réew mi léegi li ci des mooy fi ngeen dëgmal te loolu gisoon naa nga nga nga nga taxaw ci taxawaay boo am solo muy le 5 décembre Siteu Papa Sow li ci desati bëreetul matul sax un mois parce que tey ñu ngi ci le 22 novembre. kon jàppal ne combat ba ay quelques jours a ci des. waaw ay quelques jours rek moo ci des fi mu nekk nii ay réglage rek moo des wax dëgg yàlla suñu mbër tàggat nañ ko waajal nañ ko def nañ ko lépp ñeeg fi mu nekk nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ndam bu sedd guy. waaw parce que papa tamit xam nga ku neex neexal la quoi. waaw papa borom baax la. papa daal bu ko yàlla fay xolam. billaahi du ay combat yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy téye mën na ko yàlla fay xolom rek hmm. waaw. papa bu bu ko nit ñi ñaanalee rek yàlla fay ko xolam xolam bu rafet ci defar ci xam nga bëgg nit ak soutenir nit non papa il est trop yàlla na ko yàlla jàppale waaw yàlla na ko yàlla man de sama bopp man laay wax man daal gis naa fi ma teg gis naa ni ma jàppalee gis naa fi ma toll waaw man ci sa xol laay waxee yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ndam li yaakaar na dina yomb ak Siteu mi nga xam ne nii maanaam xale la boo xam ne am na lu mu bëgg am na fu mu jóge woon ce que tey si dina yomb ci Papa Sow pour mu am ndam ci kaw Siteu non du yomb du yomb moom parce que ñaari ñaari jàmbaar yi war jàkkaarloo moom saay durante ay ay ay kurfañ xeex bëri kenn war a daan loolu mënul yomb yow yow Siteu même bu doon bëree man mii sax am du ma mbër mënul ñëw rek paquet bi noonu dem foo jaar kay dina nooyi ma nooyi ñu ñu jaxasante lamb moom mënut a yomb làmb moom nit mënut a préparer combat ay 6 mois 7 mois puis presque un an kenn xamul ñaata temps la. voilà ngeen ñëw bëgg ñu xoolante rek kenn daan mënul nekk dinañ jàmmaar la bu baax mais nag. mais jàmmaarloo bi est na leen jàmmaarloo su mooy xeex ñoom ñaari mbër yi que xeex bi dina la dina arrangé papa. ñun lépp arrangé nañ. Hmm. mais mais yow Papa Sow c'est un bagarreur Papa Sow xeexkat la Papa Sow moo ko daa xeex si làmb ji. Hmm. Papa day xeex de te xeex bu wër lay xeex. Papa day jam di génn voilà xeex bu wóor lay xeex te buy dem tamit dem bu wóor lay dem papa moom xanaa kay waaw am na yoo xam ne moom ay réglage yoo xam ni si entre staff bi la mais papa moom bu dee xeex rek waaw moom moom moom moom moom am am nañ ci yaakaar moom. yéen a nekk ak moom guddeeg bëccëg actuellement li li ngeen gis ci moom dëgg dëgg jàpp ngeen ni kii bu ñoon suba suba sax pare na physiquement parce que li ngeen di nekk bëri na mu euh, koy yàlla buñ ca topp rek mais li ñu am nii moom ah macha allah papa mi ngi si état bu extraordinaire waaw mi ngi si état bu extraordinaire Siteu moom bu dee ah gëj naa ko gis mais bu dee liggéeyul ba heure bi ah affaire bi dina yéeme de hmm. papa moom ñun moom suñu côté moom lañu xam macha allah hmm. waaw yàlla yàlla bu ko cat topp nag mais pour l'instant nii moom tout est ok cent pour cent mais Siteu bu dee liggéey ba heure bi Siteu est-ce que dina tëdd dina nelaw ba heure bi parce seen digganteeg euh, parcelle ren aller retour daa bëri ndax maama Lamine Garga dégg nga fi Tapha Mbeur Liss Ndiago taxawatina Papa Sow Siteu mooy ubbi baal bi kon dafa damaa yàgg ne est que ñoom nekkuñu di leen pare ni ngeen leen di pare. non mi ngi pare non non Siteu dafa ñeme toog di nalaw ku amee Papa Sow di nalaw mënul nekk yow yow ndegam mu am Siteu lekkatul naantul ndax liggéey Asma ak Siteu même Papa Sow tamit ñoom ñaar ñëpp ngi liggéey ñoom ñaar ñëpp a ngi liggéey mais nag ñun daal suñ côté ñun ñi ngi ñaan ndam yàlla may ñu ndam yàlla may Papa Sow ndam bu sedd guy si barke yonent bi billaahi waaw. Euh, combat mën naa gaaw. torop mën naa gaaw de. Hmm. waaw. lu tax nga ne mën naa gaaw. jaa papa papa du xaar. kon dangeen di jëli Siteu. mën nañ ko jëli mën nañ ko jëli mën mën nañ ko jëli mën nañ ko déglu ça dépend rek. boo jëlee bu diisee. non du diis. déedéet papa bu ko jëlee jël bu wóor. Ah. du metti jool la de Abdoulaye. dara nekku si papa Sow ñi mu bëre ñëpp ko sut papa Sow kan la mos a bëre ku mu tollool am na amul. Ah, papa ñi mu bëre ñëpp ko sut ëpp ko gën ko rëy gën ko papa ñi muy kontagal rek te da ñu defaral bagage mais a ah, en tout cas ñun daal liggéey lañ Babacar Mm. waaw macha allah liggéey nañ parce que su ma buñu contacté de moom ñoom Franc la ñoom Gora Sock ñoom Modou du yéen a ànd di liggéey yéen ñii sax yéen ñii sax bee passé bi ngeen ñëwee avant combat bi du yàqu bi ngeen gisee Papa Sow jaaxle ngeen te boobu too ngeen lu yàgg gis leen ko hmm. waaw wax ma laa yow nga am partenaire yooyu góor Sock Franc Modou ah ak ñeen ak ñeen ñoom Garga 2 kooku bépp mbër buy bëri bëgg nga am adversaire yi bëgg nga am partenaire yooyu noonu kooku loolu rek bon te ñaanal tamit 100 pour cent bi xam nga yàlla gën ñu dëgëral gën ñu dooleel gën ñu may jàmm gën ñu dàqal seytaane ndax wax dëgg yàlla ànd bi rafet na jekk na ko quoi ñëpp rafetlu nañ ko gars yi ñëpp ku nekk yéene sa morom jàmm 100 pour cent bi ku nekk yéene sa moroom jàmm waaw booy jox nañ grand yi cëru mag mag ñi jox nañ booy cëru rakk quoi vraiment waaye. côté mobilisation amu ngeen yaakaar Siteu yóbbul leen ko. ah Siteu moom xam nañ ko si si si si si ah, moom loolu moom dus dara waaye nag Papa Sow tamit kenn dewul mu des Papa Sow waaw parce que Papa Sow mbëru askan la daal Papa mbër Papa Sow ay ay supporter ay fansam nekku nekkuñu si benn gox dañoo tasaaroo te voilà voilà Papa Sow mbëru amateur la quoi képp képp ku bëgg bëri rek Papa bu dee bëree bu nga dem fekk tuusam bu nga dem fekk bëreem waaw Papa Sow buy bëree du parcelle rek koy jóg parcelle day jóg Fass génn Médina Colobane ñëpp dañuy génn dakaar yëpp waaye nekk xam ne jiw mooy bëree am na ñoo xam ne nag seen seen seen seen seen populaire si seen gox la yam voilà voilà seen populaire si seen si seen ñoom kàcc la yam mais dafa am mbër yoo xam ne bu ñu jee bëri askan bi yëpp ay jóg waaw. mais si ta yaakaar est-ce que ay popularité mu ñëwul ba biir parcelle. no si tëgg am na fépp. <laughs> mais daal mais daal Siteu daal xam nga. Siteu popularité am dépassé na jàmm gën daa mel ni de. Siteu daal saa yi li papa wax rek comprendre nga amul problème quoi nañ ko bàyyi ak popularité bi nañ ko bàyyi fecc bi tuus bi xam nga xumbal bi mais bu ñëwee bu ci géew ga nag. mu jox paa li moom loolu garaawul. en tant que ah. en tant ak kii la rek. Ah, en tant que petit frère ak grand frère la quoi. <laughs> mu joxe affaire yi daal waaw. <laughs> vraiment. nga xam ne tëgg na combat bi mu yàggu yoon doon def ñaari at nangam presque mu sonn ci trop. te boobu ba tey macha allah mu ngi gérer ba tey ba tey la 5 incha allah rabi la fas yéene tëgg combat bi yàlla nañ ko fekk tal ko moom euh, muy doomu parcelle parcelle la dëkk waaye nag làmb la fi nekkal tey boo amoon message boo koy lancé ban lay doon. waaw moom tamit maa ngi koy nuyu di ko ziar quoi tamit muy suñu gànnaaw bu baax Pape Fall vraiment moom tamit xam nga fu la gis jox la jox la cër quoi. waaw fu la gis xam ne xamante ngeen ci milieu bi xamante ngeen ci Modou bu baax tamit xam nga waaw di ko ñaanal rek moo ci sonn na ci combat bi sonn na si trop sonn na si trop wax dëgg yàlla xam nga tamit ay moyens nu combat ak ni mu méttee chaque fois mu yàqu nga nekkaat di utiwaat dafa métti dafa metti mais ñu ngi koy encouragé ñu ngi koy encouragé di ko wax xam nga bu gé mu mu dugg si si jàmm génn si jàmm xam nga am si réussite totale nag waaw vraiment ñu ngi koy ñaanal waaw mm, mm, mm. <laughs> Euh, Ibou tey bu fekkonte ne am na looy tàggoo ñi lay seetaan di la suivre ci Equivox TV lan lay doon ak bés boobu tamit loo ciy lancé ñaari camp mbëri muy parcelle di jàmm gën ci non violence parce que dañu bëgg bés bi maanaam supporter yëpp ñëw amateur yëpp ñëw ñu bëri ko si jàmm le 5 décembre nekk bés boo boo xam ne moom ngay tëjee lancé ko tey ñi a ñëw ci bés boobu muy ñuy jóge seen gox di parcelle ak ñuy jóge jàmm gën ak feneen ak feneen ci Sénégal waaw xam nga di lancé appel rek di xamal Sénégalais yi ne leen xam nga làmb ji comme li nga ko waxee mooy làmb ji mag joo xam ne mu ubbi ci affaire bi vraiment ñu war ko def mu rafet xam ni lii làmb kese la day jeex suba Papa Sow ak Siteu bu ñu sikk seen leneen kenn du ko fekkee te xam nga ni Papa Sow ak Siteu fépp fu ñu dajewaat fu dul si affaire yi nii dañuy joxante cër dañuy nuyante dañuy sekk jàmm dañuy toog dañuy waxtaan donc ñun supporters yi vraiment nañ def ndànk ku nekk na jóge sa kër ak dal dugg sa oto solo ba set ñëw stade jënd sa billet dugg seetaan képp xam nga bu dee képp ku daan ñoo xam ne diw moo daan keneen ki ñibbi si jàmm ñibbi si jàmm ñi dem jubilé ñu encouragé kenn ki mm. waaw mais ñun li ñuy ñaan mooy Papa Sow daan Siteu ci barke yonent bi loolu daal loolu la ñaan waaw léegi nag bu loolu amee xam nga mm. tamit ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw di gërëm ñëpp comme ni ma ko waxoon au début rek maa ngi gërëm di sant sama sëriñ sëriñ Mbaye Sy Abdou vraiment gis naa famille bi nit ñu jàppee ak nit ma jàppee lépp waaw keroog bi affaire amee ñoom ñëpp waaw mag ba ndaw ñëpp ngi woon sama sama côté waaw di gërëm ñoom Abdou Aziz mbaay ñoom pam Malick liggéey ak Chérif ak ak ak Chérif Ibou Seyni Thiaw Laye vraiment ñun ñëpp ñëwoon nañ waaw maa leen sant di leen gërëm vraiment samay nit lañ samay papa lañ samay waay lañ waaw gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp ak famille Wadeen bi yëpp waaw samay magu papa samay rakku papa suñu waa kër waaw di ñaanal sama yaay tamit waaw vraiment yàlla bàyyi ko fi ba si kanam may ko gudd fan ak wér mu eggale si jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf waay Babacar kon defe naa ne kooku mooy Ibou Laye dégg ngeen li mu wax macha la am na solo souvent dama koy jël nit ñi bu ñuy commentaire dañ naan dafa yaru loolu la ñuy commentaire di wax ñooñ nag néew ma seen place ñoom ñooy bind di wax loolu dafa yaru dafa nangam te defe naa itam loolu gàllaaj la yar moom bu dee dëgg la ci yow ñu waxal la muy dëgg ci yow jàppal ne am nga gàllaaj te defe naa kon yàlla nañu yàlla defal yar ñun ñëpp macha allah wax am na solo lancé ko ci ñaari camp mbër yi muy waa kër Siteu di waa kër Papa Sow maanaam ku nekk ñëw ci fair play ñu fexe bés fête boo xam ne ni après bu ñu fa jógee dañ koy xel fàttaliku parce que mbër yi moom lu mënta xew ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax defe naa ku na ñoom Papis ak waa kër Balla Gaye yaa ngi dégg mais gis nga tey bi mu ñàkkee waajuram Baye Ndiaye déplacé woon dem ja jaale ji ko Aziz Ndiaye nekku fi yëkkati téléphone woo ko kon loolu may ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi na lépp raf parce que sport la après day passé te kera bi Balla Gaye ñàkkee waajuram Modou Lo ànd na ak délégation moom mi ca la bokk ñëw këram jaale si ko kon mbiri na rafet bi way juru moodu wàccee tamit kera Balla Gaye de kenn jëkku ko fii ci kër gi te noonu lañ koy dunde ñoom mbër yëpp muy Modou Ama tamit lu adversité bi metti lu coow li bari bari bari bari bari bari bari ci jàmm kese la ñuy mujje parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te ku ci nekk yaay may sa moroom xaalis kon ñi koy dund di supporters yi nañ ko xame noonu pour que ñu def affaire bi ci sport